douloureux yi nga xam ne Sénégal dund na ko semaine bële passé euh, atrocité bi y a eu des morts officiellement on parle de seize si ne vingt-trois euh, cas yi kenn xamul nu mu toll yàqu na trop sànq daam foo tàmbali woon ma dagg la ci bëgg naa nga ñëwaat ci en fait parce que le gouvernement aussi def nañu benn conférence de presse fan yii passé dafa mel ne ci sens boobu la ñu jëm. Mhm. Euh, on le on le dit même depuis par rapport à ces forces occultes yoo xam ne euh, les Sénégalais ont du mal à croire parce que ba gisuñu loo xam ne wane wane na ko donc tey jii nii est que doy na rek ñu ñu koy wax euh, voilà qu'est-ce qu'il discours. man de rafetlu naa trop le fait que le gouvernement ñëw communiquer. Mhm. parce que jàppewuma ko opération de charme. tolluñu foofu. c'est à prendre au sérieux. moi je pense que il faut prendre très au sérieux li nga xamante ne euh, trois ministres de souveraineté le premier ministre et le porte-parole du gouvernement toog nañu def ko. Mhm. te ko ci nekk di pàcc gé di gérer pàcc boo xamante ne dafa sensible. waaw parce que yaakaar naa ne. Euh, le ministre des forces armées Sidiki Kaba du. il sort pas beaucoup. comme comme on dit il est aligné sur la grande muette. Mhm. kon bu génnee wax et d'ailleurs j'ai beaucoup apprécié hier la précision bi mu def sur le la CPI parce que il a quand même été président de l'Assemblée des États parties au au traité de Rome donc euh, xam na li muy wax bu baax a baax et je me suis bien délecté du texte bi nga xamante ne génne na ko te mu doon lu leer par rapport ak li nga xamante ne ñi ngi jéem a nasaxal xelu nit ñi parce que lu nekk aussi dafa am ay règles mm-hmm. te politique bu mu tax ñuy jóg di jaxase yëf yi pour jaxase xelu nit ñi te jàpp naa ne conférence de presse bi loolu moo ko tax a jóg mooy delloo si la bonne information parce que campagne de désinformation am na te yow xam nga ne que depuis quelques années au-delà de la campagne de désinformation dañuy travailler sur des fake news maanaam sax ay fen ay nar. Mhm. dañ koy def di inventer ay wax euh, di ko tasaare ci réseaux sociaux yi pour nasaxal xelu nit ñi. on a vu en pleine manifestation nit ñi di génne des images de deux mille vingt et di ko wane naan woy parcelle la ngi booy jóg leen machin xam nga cest dire moi pour moi ce sont des actes subversifs te yooyu dafa doon loo xamante ne bu fekkee ne dañu am un gouvernement. Mhm. nit ñi fal la nga am responsabilité da nga war a jël say responsabilité mais est-ce que grand loolu laa gis.